Hadj Malik si mu jaar ba am Babacar Sy moo waroon a jaaxal adduna yépp ndax Babacar Sy ñewul takkandeeram ma fu wacc même ñewul dégg na ci lamagnam ak suma nop mon ma doom juruma ken wa yalla jox na ma njabot mon na yalla jox na ma njaboot nag waaye Babacar Babacar rek la Babacar ak suma nop nu ngi dox jëmloo di siyaaj maari maa ngi te ampul bi di ne tànkam boo bàyyi fa ña ñi ànd àndal ñëpp ñibbisi moom moom moom may indi ma dem def fa fukki fan ak juróom benn ñibbisi dernier avion laa dem ñëw deuxième duwaañ du ma seet sandarma du seet ab naar du laaj fu ma bëgg a dugg dugg fa lu ma bëgg a def def ko googu góor ànd ak moom yombul boobu di di Mouhamad Mansour keroog ba ñu génnee ci réew dul Seydil Hadj te lu nar a feeñ te yàgg na noo dem mag Babacar Si dafa mën a doom tey daanu feeñ suñ Babacar moo ma ko wax dama tey daanu feeñ nu dem ba ci bunti réew bi ma jox ko sajaada beeg ampoule bi mu summi dàllu càmmoñ wi ma for mu summi wu ndajoor bi ma for mun ma taxawal fii ma taxaw fa mu dugg ci réew du Maodo gis nga suñ Babacar mu ëpp ñëpp ay teggin mësula tujji réew du Maodo te ab dara welee ngeeg caabi suñ Babacar ngeeg caabi te bu ñëwee ci urum bi lay yem ngir ormal Maodo ma dégg muy wax la muy wax ma ci xam dara waaye bu ne insha allahu rek ma xam ne mu ngi ñëw bu ñëwee mu joxaat ma ampul ba joxaat ma sajaada ba ma tegal kat dàll ya mu sol billaahi billaahi billaahi loolu kenn du ko wax ci rajo ci fen waa Tiwaawan di la dégg waa Tiwaawan ñoo la gën a xam ne lii ma la wax dëgg la ñoom ñoo ko gën a xam nuy ñëw di génn rek góor gi mu sàññan génn ca bopp jumaa ja sëwee ba mun ma dafa mel ne am na kuy ñëw ndax moom du geesu du tufli du ñandoo du tisey li du toob wéeru sëñ Babacar amul karasuwaal du jël kaala raxas ci kaw boppam du du du lekk ñetti yoon ci ndax bu dugalee ñaari loxoom rek génnaat na sëñ Babacar du tëdd ci kaw lal di nelaw ndax yabul yàlla sëñ Babacar du julli ñaari waxtu yu farata ci benn njàpp tisbaar damay tàngal sa télé bi mu jàpp takkusaan dama koy tàngalaat mu jàpp bu timis jot dama koy tàngalaat mu jàpp bu laa guddi ma baxal ko mu jëm jël man ma doom xamuloo ne boo amee gan goo fonk nga rayal ko mu jàll dem génn ga ñëw rayaloo ko te ku ci ne di gan ko foor nana boo ko rayalul ay seel nga kay jox bon waxtu yalla yeb ay gan yu bes lañ dañu wara yeesal ñap bo bu nit na amatul alañ musa ñang dabnu moy imaamu ratibu tiwaawoon mu dem dogale serigne babakar ci kanam sumi dalam wolbe teggu serigne babakar du geesu buy dox ca day bo xal xoy ndax du ko yor yamul yalla nuyu ko ba pare ñu jàmm sant tuuti Moussa ñaa ngi geesu rek bëgg a xam ci kana mënu maa xam si mbaaw kan ne Abdou Karim ma nekk si mun ma ñëwal nu ñaanal imaam mi ndax mu dellu ma yëg te mu ñaanal ko ma nangu ca ñaan nga nu ànd di dem mu ne daanu feeñaat ko koy nitu yàlla nu dem romb Njaasaan dem ba kër per ga jibi sa nekk ba nuy na ngir dugg ak ñu seen Sëñ Mansoor ca buntub daara ja muy génn ci kër ci këram gi mu nekk tey booba ay néegi ñax la fa samp mën ma sëriñ baa noonu noonuy ñëw borom daara ji moo tax ma ne sëriñ Mansour ñi lay tuddee tuddee borom daara ji ñëpp mu naa man a bu ko ku la ko waxati neel Babacar Sy moom a ko tuddee Abdou Karim Ndiaye la ko wax mu ñëw nuyu nuyoo ba pare sëñ Mansour nuyoo moom ba pare dellu keroog nag la ñu gëj am ku ñu ku ñuy gis dañu changé heure lu sensé heure nag sensé nañu heure lu sensé heure ba benn bés nu ñëw ñu ngi liggéey Ndiassane en 53 mu ne nan jaar ci liggéey bi ma seet ko ndax si daaj Malick moo ma waxoon ne Babacar ma ne si mun ma tabaxal ciment ciment baa ngi ñëw nu dem yéeg ci kaw étage bi di seet li ni ñi liggéey ci dimanche bi ndax guddi altina rek lay dem rodu mawdo du fa dem guddi aljuma dafa dem benen guddi guddi aljuma ci ngoon rek lañu fay dem mu xol xol xol ba ha ha ah, ah, ah, ligey mawdo bi jar nako ndax ñaka wo xamne ko ka ñaq saw bu ëllegé kaw sara nga kay sango ji jar nako ñu wàcce ñibi gor gogu laani oto yi ngeen di dugg di ko taf ci pare-brise yi nañ ko dindi te ormal ko ku nanguwul teg sa loxo ci pare-brise su digg bëccëg muy tàng bu ci taf kayitu si ndaw kat si ndaw kat kartam googu du photo taskiratul xuwiya la soo ko yoree mooy seen carte dayra adduna ak walaaxira ormal ka seet foo ko teg nu rawul benn photo kuy dund te weñ du la dal du dugg sa néeg du dal ci sa mbubb te koo fi xool ku mu doon weñ ñi suñ ka xam nga ne kooku du Babacar Sy lañ ko ormal bu leen ko teef ci tàngana yi ci jaayukaayu tàngana yi nit du wanteer sëriñam di ko waneem njënd ba di ko def ci biir barab boo xam ne boo koy def ci oto ormal ko ci biir aj ko ci kaw bu mu nekk ci parapluie te ñu wàññi ko ci carte daayira yi ku ko deful ci sa carte daayira waaye bu ko def ci carte invitation bu paree muy xotteku sëñ Babacar dañ koy ormal soxla yu téye yoo faju feebar yu bari yi tànk yi métti jabet yi carte sëñ Babacar yi ñëw fooy rek moo tax feebar bi mel ni mu ngooñ bu leen ma ree am na lu ma xam de wal wallaay wallaay ñëwuma pour wax lu reeloo leen dama leen di laye biir man ñëwuma sëñ Babacar fotom bobu ay doomam mënuñu ko wax man ma ko mëna wax bu ñu ko waxee ñu ne limu leen jura tax waye man mi nga xam moma ma jël ci loxo bopam tek ma ci wetam lima leen wax dama ko xam xamu leen ne suñ baaw kër benn nit yëkëti uma ma ci loxom du goor du jigen moma xolal bopam ba woo ca dara ja laaj ma kuy sa sëriñ ka ne ko mbay mun ma wol mako ma mbay mu ñu mëna ka ki yow lañ ko mu jox abdou karim mëna ka jox ma mu ak man te mu bàyyi dara ji looloo ma bàyyiloo dara ja ma continuer ci moom suñu waa dëkk naa du ma xam dara waaye fóoree yëpp miin nañ ko léegi fóoree ji waxoon ne du ma xam dara miin nga ko fu nu daje ma daaneel la nga xam ne Babacar Sy du sa ma wax ne bàyyi leen ko xel Sëriñ Malick nee na radiyallahu taala anhu innal wasifata lil xuraayi aasimatan kasaaka axliimuha fi kulli buldaani dëgg la falaasimuha tu bu kenn way attention de te bëgguma cambal cambal di waaxu di baagante pour waykat bu leen fi xaalis indee nan tas jàng yi dama bëgg ñu jàng jàng yi nit ñi jariñoo ko ku ne ñibbi sa kër wërsëg yàlla ak moom bu dul loolu kat du sotti dañuy yëg ne Maodo lii mu wax ne innal wasifata innal wasifata lil xuraay aasimatan kasaaka ak liimuha fi kulli buldaani falaasimoha tulaasikum ahibatana ñu ne ka kan mu ne safaatul Moustapha min dooni bootaani lu mu bind bu ko laaj keneen doy kooka laaj ku mu doon Maodo ko gàggandi nee na wasifa buñ ko defee ci dëkk mooy ci dëkk ba ñu ne ko ak ñan mu ne ak ñay dem tool di ratti gàtte ya bon faraasi moo xaar nañ ko taxal ci dëkk bu ne tulaasikum ahi batana da ngeen taxoog cofeel safa atul mustafa bu ëllëgee ramoog yonent bi ngeen bokk ci te Maodo ne lii ma wax min dooni buxtaan kenn du wax na du dëgg waaye loolu Maodo wax rafet na baax na mais am na lu gën a gaaw suñ baaw kan moo ko wax bul way de suñ baaw kar nee na réduire de l'olance ba la tajar bi saa abadan ñu ne kalu xew mu ne inal manahi la tax nin mata rit da ngay ñëw léegi léegi man Babacar Si ma xamal lu xa lu gën a gaaw kaay root rek wer doxoo déglu leen bu leen waxtaan da ngeen di rëcc la de gis ngeen man bokkuma gàmmukat yu bari xam nga lu tax fi ñoo waxe ak fi ma ñoom dañuy yër di wax man damay yëg di wax dama am ku ma àndal dañ ma jox kaas Babacar Si moo ma jox kaas sow man rek la ko jox ci Sénégal ma naan ko maa ko bon damay yëg di wax ngeen di yër di wax du nu ànd bu ko weddi de ku ko weddi bu dee na du la fekk fii de billahi ku ko weddi bu dee na rek moom fekk ci biir bàmmeel bu ko bu ko de ëpp naa def de ci ndaw ka dane réduire de walaas ba kaay nga root te tànqa te naan te yëpp sa njaboot al ba ndox mi di tarixa seex bi di werde wi al ba moo dàq moo gën a neex werde yëpp te attention laa tat jaar bul wut keneen bul dem feneen bu ko jaxateeg leneen ñu ne lu xew mu ne inal manaahi la ci wéy tarixa yëpp tax mii ñu ngi leen moon tamit masaaya ci dégg Cheikh Ahmad Tidiane bul way de nga yëg ne taalibe taalibe ba ba muy dee na xalaat ndax ak taalibeem nangu nañu ko wala déet waaye nekk fi di wut ak cëriñ am nga retard ah am rek déjà déjà rek nga ne sëriñ nga déedéet la jox lit laax rek nga ne sëriñ nga sëriñ Babacar nee na sëriñ Babacar nee na daf koy wax mu ngi tëdd ci kaw lalam maa ngi taxaw mun ma doom billaahi mu ne ku mën la tëdd nii ci talal di waxtaan ak ña ca barsax di waxtaan ak ña ca aljanna di waxtaan ak ña ca safara di waxtaan ak ñi ca adduna ku ko mënul boo lekkee addiyee bu ëllëgee yàlla fudd ndigg ñi seen ndigg nar a tàlli ñoo ko bari dañ wàññi daraja yi ak xubar xubar bi doy na nag lu waay di tiitanoo rek ak foo ko jële ci ci réewi Sénégal rek wala ci réewu Europe boo dellu see Tiwaawan te ngay borom xel nga am gàcc xam nga lu tax foo jàngee fu mu doon boo di xalifa bi gàgganti la boo gagee mu gàgganti la xam nga lu tax ñeent fu ñu tëdd xaar fa yàlla taaliba bu fa sa xel dalul man faa dem siyaare ji ko sob xol rafetul ku tëdd fii Seydi El Hadji Malick ku tëdd fii Babacar Sy ku tëdd fii Hadj Mansour ku tëdd fii Alaaji Abdu ku tëdd fii moo leen juróomeel Alaaji ca Tiwaawan boo demee Tiwaawan ba àgg xam nga noo war a mel da ngay soppi sa bopp néew néew buñ la dompee bu ko yëg te bul dompe kenn bu ñu déggee sa dàll bu bul jàmbat te bul dëgg dàllu kenn bu réeree bu ko jàmbat te bul sàcc kenn xam nga lu tax diggante Rawdu Babacar Sy ak Rawdu Seydi Hadji Malick ku koy jaabante ak kuy jaabante Safa ak Marwa ñoo nuroo ndax inna Safa wal Marwata min shaa'irillaahi fa man hajjal bayta aw ihtamara fala junaaha alayhi an yatawaffa bihimaa seen diggante bokk bàggane bàggante am nga yiw waaye ñaari xutbu samaan seen xaaj Malik xutbu samaan la Babacar ci fardul la ku ci ne di xutbu samaan nga jaar seen diggante di bàggante su mil tax daal yaa ngi yaa ngi yàq sa bopp laa tax jaban min xaalikin kayfal hawa bal faajaban min saalimin kayfa najaa borom way wa la wax bul yéem ko àdduna alak nan la jaar fii ba def ko ba àddina alak ko àddina ñeenti bunte lu am yu gaaw ci alkande benn bi mooy làmbañ wu sax ci fen nit ñi nañu bàyyi ay fen dara jaru jaru ko dara ja jaru ko nañu bàyyi fen nit du fen nit ku baax du fen benn baa ngoog de lu gaaw ca alak nit la fenn ñaareele alkande mooy bëgg a daraja lu ñu la yëkkati nga xeeb ko wàccal nag wàccal wàcce jot na nag daraja baaxul xam ngeen bu ko ñetteel xeeb nitu yàlla day alag nit sëñ babakar neena man babakar kuma la doyul bu mu genn ci te gémmañ ba nit deg ko da nga dok ca yalla ak fo meuna a jokk dok nga ca yalla nana man nga ko xelat way bu ko wax mu genn ci biti nana da nga dok ca yalla koku du ñu du ñi du ñee sëñ babakar neena na babakar neena sëñ Babacar nee na moytu leen jamono bii ñëw dana lëndëm ànd ki lënd te dana ñetti làmp takk gu mat sëkk njàmbaar gu mat sëkk xel mu mat sëkk takku xalifa nee na mooy lu ma la nga ñu takk ka ci sa dënn ci gëm sa borom nga bañ ko jaawaleeg sa morom ndax kat ñàkk fayda ba jël sa moroom def boroom nga jël sa boroom def ko moroom di tiit ci sa moroom te doo tiital sa boroom di yagari yagari ngir sa moroom te doo yagari yagari ngir jëm ci sa boroom di toroxlul sa moroom te doo toroxlul sa boroom di dégg sa ndigalee moroom nga sàggane sa ndigalee boroom di nango joxe ngir sa morom ca do nga nango joxe ngir sa borom nga jël yeg gi gëna for nga jox ko sa morom te yeg gogo do ko jox sa borom bisa ngi ñew sa borom na taru sa morom ñew futti la ba nga mel nat nen di la sang ba nga mel ne butil sang la ba nga mel ne suppame mu takka la ba nga mel ne say ñox mu genn la dekk bi gas ci sa suufi borom delloo la sa borom nga des ak sa borom kéro nga sa borom du sa moroom te sa moroom du sa moroom wàññi leen xuubar xuubar ji doy na nag mën a ji doy na ñamu doonoon dem nañu dem nañu te doon taalibe laa ne ndax mën na gaaw a am da ngay ci tarixa bi ba am juróom-ñeent fukki at boo amul sax nga yàqule xamal xamaloo luy tax da ngay naagu afala yaamana makrallaahi ilaa xawmoon xaasiroon yàlla kenn du ko laal du ku ñuy làmbatu du ku ñuy seeti yàlla dañ koy yëg kenn du ko làmb kenn du ko xool dañ koy yëg boo yëgul yàlla ñàkk nga waajur dañ koy fonk ñaxal ko jéggal ko dimbali ko sëriñ dañ koy ormaal yëkkati ko màggal ko déglu ko jéggal ko Sëñ waa ngay wax ci benn bayit fële na laa tastari dunia ñu na àdduna waxul ala adduna de mu ne bi uxra yaa fata man ba a nuuran bi du jaa fa seende mo daf na laa tastari dunia sa dund gaaw a jeex gi lee nga dem te waxuñu la kañ la waaye waaye bu ko jaay ak poñet itam adduna mu ñàkk fay demee bi uxra ci dund goo xam ne boo fa demee ak noo mën a mel dootoo fa jot man ba nuurun ku jox alquran gannaaw jaay ko jeggu new bi du jaay jinde ko soley fa sa yende mu dajja ak yalla nga am gatché inna ladina rabbuna laaw sumastakhamu tatanassalu alayhimul malaik ngir lan an la takhafu ولا تحسنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تؤدون نحن أولياءكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم كيف القرآن دفع عندك دوم آدم ديك ولبت جمانا بني ديك وان يونوي بونا دوغ جوب إن الذين خالوا ربنا الله يكرك نا يالا نمام يالا نا دويما دويما يانو مام دويما ثم استقاموا دنجي جوب نك جوبل suñ bawkat dañ ko laaj nit ku jub nan lay mel mu a day bàyyi fen <laughs> ñu ne ko nit ku jub nan lay mel mu ne du jëw nawleem ñu ne ko nit ku jub nan lay mel mu a du xeeb ay bokkam ñu nekk nit ku jub nan lay mel mu a du yàq ay dëkkandëm ay dëkkandoom ñu nekk ko nit ku jub nan lay mel mu ne ku mu gis nga mu defe ne kéema tene ci yàlla moo tax mu ne ku ne bu ñett amoon ñett dana am ñetta am na te ñetta amul bu ñett amoon ñetta am suñu Babacar moo ko wax ku ne amoon ñetta dana am ñett am na te ñetta amul bu ñett amoon ñetta du am dafa wax ne ku ne bu yonent bi dellu soon di dund ma topp ko sa taawu baay di dund nga bañ ko topp bu yonent bi dellu soon doo ko topp ku ne bu yeneen bi dellu si woon mu di dund ma topp ko sëñ Babacar ne ki toog ci place su yonent bi ci sunnam teg tànkam te teggew ko nga ne doo ànd ak moom bu yonent bi dellu si woon ko topp ku sama baay dellu si woon di dund ma topp ko sa taw baay na jot na nga bañ na doo ko topp bu sa baay dellu woon di dund ku ne bu ma amoon doom ma jàngaloo ko alxuraan ndax bu ma dellu woon déggu na dinaa jàngi alxuraan yàlla jox la doom ju mën a jàngi alxuraan nga bañ koo jox mu jàngi alxuraan boo dellu woon déggu na doo jàngi alxuraan bon ku ne bu ñett amoon ñett dana am léegi ñett am na te ñett amul bu ñett amoon ñett du am ma dem ah suñ Babacar ne suñ Babacar ne billaahi lu mu wax dëgg lu nekk sama xel yàlla na nekk jàmma nee na mooy tolloog la xalima yi bind ca loolu ma foos ba ma ko xalaatee rek yàlla bind ko waaye kooku du nun nañ ko ormal te fonk ko te def ko sëriñ xamula ne bàyyi bàyyi maanaa ak bàyyi sul bi dañu am différence bàyyi sul bi mooy bàyyi bi la jur jur gi rek la ca am mu dundal la ba nga doon